mbokk yi ak xarit yi dañuy àndandoog yéen déglu ki nga xamante ni moom lañuy wax El njaay Ndiaye kàddu yi nga xamante ni bi yëkkati woon na ko foofa nga xamante ni fii mooy ca RFM ñu déglu kàddu El yi soog a ñëw li tax ñu tànn stade Amadou bari nag mooy fànq yenn lay yi nga xam ne euh, semaine ak weer yi wees yëpp gouverneur rek préfet saa yu ne moom la ñuy génneel ñu ne nan dem ci lieu fermé parce que pur bu yàggul dara organiser na ko fa amul woon benn problème ñu jàpp ne ñun tamit buñ ko fa defee defee ñu mën a am investiture bu mucc ay benn problème du ci am ndax lieu fermé moom kenn du ne la da ngaa fattaw yoon wala da ngaa def trouble wala nangam. gouverneur moom euh, bu Ndakaar li mu wax mooy seen taxawaay fan yii nee na ba ci Ousmane Sonko mi ne bu bokkul ci élection yi kawoo dina maanaam réew mi dina wëlbatiku euh, yooyu bokk na ci li mu junj ci communiqué bi mu génnee démb pour wax ni loolu ngeen bëgg a amal di meeting boobu ngeen war a tabbee Sonko du fi amee. xam nga ñoom li ñu naan ko wax feeñ. Ousmane Sonko dafa wax au conditionnel ne. élection ci mim réew te Ousmane Sonko bokk ci mooy dañoo bëgg a jaxase dëkk bi maanaam ci gàttal ci wolof. waa léegi élection jotagul dépôt candidature jotagul président Ousmane Sonko ba fi may waxee yow pertul benn droit civil ñu décidé ne dañ koy investir ñu ne duñ ko fi investir ndax day indi kaw xanaa ñoom kon dañoo décidé ne du bokk ba pare bu dee loolu la nañ taxaw dëggal seen bopp am fit wax ne Ousmane Sonko du bokk ba waa ñu xam naka la askan wi jëflanteeg moom ñoom waaye dafa am solo foofu ma daaneel xam nga réew mi moom day am yoon rek wala mu bañ a am yoon ñun mënuñu fi nekk un parti politique légalement constitué respecté lépp loo xamante ne nii moom lañ teg gàll ci loosu parti politique yi ñoo ko ci gën a respecté sax laay wax war a def investiture comme ni ko ñenn defee barki démboo Ndiaye ñu ne ñu di ngeen ko ci fi defee ndax réew mi mën naa na sax su fekkente ne Ousmane Sonko du bokk comme ni mu ko waxee ah kon gouverneur dafa xam ne Sonko du bokk nañu bàyyi caaxaan yi réew mi dañ fi bëgg a bu yëf yi yemoon fii kay du bokk yi ñu gàll ci bu yëf yi yemoon fii Babacar ci décision tribunal Babacar yi nga xam ne génn na bu bu fekkoon fii la yëf yi yem bu doon fii lañ ci yem eh, du bokk Babacar ñaa benn ci procès yi ba fii may wax ak yow ama amagul condamnation définitive waaye dafa am lu gën a sax yéem waa mais même buñ ko condamné woon am nañ droit ñu ne mooy suñu candidat est loolu raison la pour nga ne kenn du def meeting d'investiture investir léegi léegi comme góor investir nañ fi candidat bu nekk kaso déposé nañ candidature ku nekk kaso fool nañ fi fool nañ fi député wala leneen ci ko ku nekk kaso donc loolu moom ça n'a rien à voir il faut déconnecter les choses xam nga tamit bu ñu def jeu wu état bi ñoom dafa am lu ñu nësër bëgg ko di wut ñu leen ci jàppale di leen wutal ay lay bu leen nangul loolu lii dëgg bay dëgg mooy ku ñu neex la ñuy investir ku ñu neex président Ousmane Sonko lañ tànn investir nañ ñu bàyyi ñu investir suñu candidat la ca des nag ñoom ak askan wi la day bokk ak du bokk ñun xam nañ ne xel xalaatul élection ci mim réew te usman Sonko bokk ci loolu askan wi ci boppam ñoo ko décider seen bopp du loo xam ne ñun sax soxla nañ di ko wax. kàddu yi mooy yi nga xamante ni bii moom la El Malick yëkkati joxe li tax ñu tànn foofa di bërëb boobu nga xamante ni bii mooy Guédiawaye stade Amadou Barry lépp ngir bañ coow moo tax ñu daal wax ni foofa lañ koy defee muy bërëb boo xamante ni bii tey du lieu public mais privé la parce que bu ñu duggee ca stade ba mën nañoo amal la nga xamante ni bii moom la ñuy amal te baarewuñu leen tooñuñu kenn waaye terewul ba tey gouverneur wax na ni mënta ne li tax mënta ne muy kàddu yi nga xam ni Ousmane Sonko yëkkati na ko foofa ca France 24 wax ni bu demut élection ni mu ko waxee ne li nga xamante ni bi moom lañuy wax élection du am El Malick waxaat na jubbanti ne xanaa dañoo bëgg ay élection du am ak élection du am ñaari mbir la yoo xamante ni yu wuute la mais li am solo rek mooy li nga xamante ni bii gis nañ ko ñu teg ko parti boo xamante ni bii mooy parti Pastef mu nekk loo xamante ni sénégalais bu ne war na poser waat question laaj lan moo waral lii parce que li nga xamante ni bii teg nañ ko parti bi defe naa ni jéppi jamono di jamono ba nga ci histoire politique senegal kenn mësul gis parti boo xam ni daj nga fi lii. mais li doy waar ci li nga xamante ni moom la parti bi di daj muy parti Pastef depuis que Sénégal ba Sénégal ba nëgë ni liñ koy teg nekkul loo xamante ni bi day nërmeel parti bi mais dafa mel ni lu koy suuxat la dafa mel ni parti la boo xamante ni man tey bu fekkonte man maa ko doon teg ay coono yii ma koy teg dinaa xoolaat sama bopp jàpp naa ni li nga xamante ni bi mooy ndox mi ñu koy roosee ndox mu baax ci parti bi la mais baaxut ci ñi nga xamante ne bi ñu ngi koy roosee ndox moomu parce que depuis mbir mi day gën a jóg ci kaw sénégalais yi di leen gën a bëgg di leen teg foo xamante ni fii da ngay yéemu ci yàlla démb dama toog ba ci yàgg am koo xam ni dafa ma doon woo téléphone di woote di insister woote insister woote insister pour te dire que ni sénégalais yi problème Ousmane Sonko defatuñ ko mu nekk problème mais ñoom dañ ko def ngir mu nekk seen problème bopp te loolu man dama jàpp ni ñi gouverner réew mi il faut que ñu xool sénégalais yi fan lañ toll ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko est-ce que ñi ngi mesurer loolu waa ji daf may woo ci suba ba ngoon après ma daa dee yëkkati sama téléphone daal di koy woo li ma doon wax lenn la. mu ne ma bi ma maa ngi jéggulu de ci woote yi nga xamante ni bii maa ngi la koy woo ci suba ba nëgëni ci dérangement bi nga xam ne maa ngi la koy déranger mu ne ma mais dafa am kilifa goo xamante ni kii daf ko wax ni ko dafa am loo xamante ni bii daf ko gént soxlawul sax ñuy xam turam moom ci jëm boppam loolu la ma mu ne ma te kilifa googu nee na dafa gént. benn mats boo xamante ni dañ ko doon football mu ne bi ñuy football match bi Ousmane Sonko ñu ne woon warta bokk ci football bi mu ne waaye Ousmane Sonko mi ñu wax ni warta bokk moom moo dugg dugal bit bi gën a rafet ci football bi mu ne ma nag lii laa moo taxoon ma di la ko wax bu mën a saraxe xar moo xamante ne bi xar mu weex nga defar ko saraxe ko loolu mooy li nga xamante ni bi daal moom la ci digle mu nekk loo xamante ni bi nga gis kooku loolu moom moo ko yitteeloon pour mu wax ko loolu rek mooy li nga xamante ni bi moo ko yitteeloon mais mu ànd ci ak farlu goo xamante ni gi kenn mënu laa wax nu mu demee loolu nag nekk ay milliers et des milliers de personnes yoo xamante ni bi noonu la ñuy dundee yëf yi man damay dem ba wax ne problème Ousmane Sonko bu ko nit ñi nattee ne problème mu Ousmane Sonko la loolu mooy erreur parce que doonatul problème am maanaam dafa mel ni Ousmane Sonko bu nekkee ci ay jafe-jafe day mel ni réew mi ñëpp a nekk ci ay jafe-jafe da dajeek ab ambulant muy wax ak yow mu wóor na ni kii nekku fi c'est yu mel noonu ñi nga xamante ni bii ñoo jiitee réew mi dañ koo war a xam dañu war a xam. ni fi nga xam ni fa la Ousmane Sonko mii toll ci sénégalais yi moo waral ay mbiram saa yu ñu ko laalee rek ay jafeñ-jafeñ am ci réew donc loolu lu ñu war a xoolaat la loo xamante ni bii tey man jàpp naa ni képp ku yéene Sénégal lu baax bëgg a senegal ngir mu am jàmm ak dal lépp loo xamante ni bii mi ngi xiirtal nit mu jëm ci jëmmi usmaan Sonko loo xam ni mën na ko indil fitna. defe naa ni war nga ko mën a teg ci suuf jéem a xool leneen parce que président Macky Sall Sénégal lañ ko dénk sénégalais yi ñoo yëkkati Sénégal teg ko ci loxoom kon moom jàmmi Sénégal ndamam la lépp loo xamante ni bii nag c'est que bu mu nangu mukk nit di ñëw di ko wax naan ko Ousmane Sonko mii soo continuer nii bàyyi ko ci li mu nekkee da ngay faible état bi day faible non loolu amul. état bi sénégalais bi ñuy fal président Macky Sall pour réew mi nekk ci jàmm ak dal la lépp lu mu teg jéego bu mu teg ngir jàmm ak dal googu am ci réew mi la lu koy yëkkati la waaye nekkul benn yoon loo xamante ni bii lu koy luy nekk aw xasam la déedéet waaye luy nekk ay taggam tey la ak ay taggam ëllëg loo xamante ni bi dañ ko ci tagg tey ak ëllëg loolu mooy def li nga xamante ni bii. parce que ñëpp dinañ xam ni bàyyi na ay bëgg-bëggi boppam daal xool li nga xam ni mooy bëgg-bëgg réew mi dëgg-dëgg mu teg ko bi mu waxee yëkkatee kàddu wax ni du doon candidat sénégalais yi ni ñu apprécier loolu daa dee rafetlu taxawaay boobu nga xam ni moom la taxaw bu fexee tamit ba jàmm delsi ci réew mi ci kaw lii nga xamante ni bi mooy fitna gi xeeñ te yàlla bu mu yegg si mu fexe ba du am loolu aussi tamit vraiment day nekk loo xamante ni lu koy yëkkati la mu jóg ci kaw ñi koy jéem a wax bu fekkente ni bi ñoom ci seen jëmmi bopp dañu ne kat président d'accord léegi doo dem élection mais waa ji mënuñoo ma dem ak moom élection parce que bu ñu demee ak moom élection dañuy gagné jàppal ñu tànk bi na lànk te xam ni moom ba muy jàmmaarloog Ablaye Wade amul kenn ku ko jàppal tànk ab Ablaye Wade dafa ñëw daal dee def ak moom li nga xam ne moom lay def sénégalais yi jox ko li nga xamante ni bi moom lañ koy jox loolu tamit na ko nangul ñi nga xam ne ñoom nañu jéem a fexe wax ak sénégalais yi waaye bu mu jéem a fexe def leneen loo xam ne ëllëg si biir luy nekk ay tâche yu noir la ci nguur gi nga xamante ni gi am na ko sunu boroom teral naa la Sénégal jox la bopp joxaat la bopp ñaari yoon nga am ñaari mandat nga nar def loo xamante ni bi lu extraordinaire la premier président bi organiser ay élection yoo xamante ni bi moom bokku ci loolu nekk loo xamante ni lu rëy la ngalawaay bul nangu kenn ku lay dugal ci loo xam ni mën na ko nasaxal lii la sénégalais yëpp di ñaan mooy nga bàyyi ñëpp bokk sénégalais yi tànnal seen bopp ëllëg si biir mu doon woy woo xamante ni bii say sëtëki sëtaat danañ leen koy wax ñuy am te ci seen maam doxalin bi nga xamante ni bii doxal na ko Sénégal yamul tey day jàll lu yàgg dangay dem lu yàgg Sénégal continuer di ne kon am na yoo xam ni bul nangu kenn koo xam ni dala ci buux man jàpp naa ni ñii pousse président Macky Sall ci mu doxalee neneen ñooy ñi nga xamante ni bii tey ñooy ennemis yi gën a mag parce que tey jii lañu xool xooluñu ëllëg ñun ñi lay wax lii nag ëllëg la ñuy xool ngir sunu borom may la way woo xamante ni bii tey it mérité nga ko ci kaw li nga xamante ni bii moom nga war a doxal nga doxal ko.